ngir ngeen mën a toog suñu programme yu am solo yooy daw leen abonné ci chaîne bi te bañ a fàtte activer cloche bi pour benn programme bañ leen a mën a ram. Jazboul Mouride au service maam Mame Cheikh Ibrahima Fall. bismillahi yal mina seytaan rajim wa inni uhizuha bika wa zuriyataha mina seytaan rajim rabbi ahuzu bika min hamazati sayatin wa ahuzu bika rabbi an yahdurun bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi wa salla abada ala allazi bihi lana huda abada sayidina muhammad wal ali wa sahbihi zawina wali wali asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu asalaamaaleykum mbokki murid yi mbokki julli safoo saa su nekk Jazboul Mouride TV ñu ngi leen di nuyu gën gi nuyoo bu baax te di leen siyaare te jiite jiital si nuyoo beeg siyaar bi Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké moom ñaan ko saa borom yaal ko lol te ko mbollem na li nga xam naal nako li ko maam ji tedd ci Bamba sa borom dool ko katan ak man-man dolel ko defal ko tawfiix ba nu ko beugé mu def ko ni noonu it lañ koy ñaanalé sëriñ Amdi Fall mom sëñ Modou Fall Mbenda sa borom yaal ko fi lol te ko mbollem digal yu ko Bamba yep mën ko jëfé ni mu ko beugé di ñu ko digal ñu koy jëfé ni mu ko beugé waye ñaan ko suñu yaaka ji tek ëlëk nak Cheikh Fallou Modou ta sa Fall rakam ja Cheikh Moustapha ak njabootu suñu Modou Aminta gi yëpp ñu ngi koy ñaanal mboolem murid yi mboolem jullit yi ku leen yéene jàmm ni leen ko waxe woon ñu ngi seen jotaay li nga xam mooy daayira yi tey jii ñi ngi fii nag di lycée LPA am daayira boo xamante ni dañ leen a seet si muy naylul maraam fas yéene waxtaan ak ñoom ci lañ leen waxoon daañ ko def wax nañ leen daayira fu mënti nekk daañu fa dem waaye fas nañoo waxtaan ak ñoom itam li nga xamante ne mooy lu jëm ci daayira bi tàmbaleeg daayira bi e, seenu déroulement waaye tamit seeni objectif yëpp yoo xamante ni daayira bi bëgg na ko lépp lu xew ci biir daayira bi incha allah fas nañ leen ko wan. ñu toog jëwriñ ji nga xamante ni mooy sëñ Abdourahmane Diop ngir fas yéene seq ak moom ay ay ay ay waxtaan sëñ Abdourahmane ñu ngi leen nuy bu baax di la siyaare. waaw salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bi. mu leen nuyu bu baax te di leen siyaare te di leen balwaaq di fas yéene addu ci kàddu jëwriñ sëriñ Sidi Jaxate mi nga xam ne mooy jëwriñu daayira Nayloul Maram ñu ngi sant sëñ Tuubaa bu baax di ñaanal Seex monta mu yàgg fi lool te wér ak njaw sëñ Tuubaa geeg maam Seera Faal yëpp jërëjëf jërëjëf sëñ Abdourahmane gannaaw nuyoo beeg siyaar bi liñ bëgg a laaj mooy fii nekk mooy ban daayira maanaam kan lañu sos daayira bi turu daayira bi nu mu dikkee loolu bëgg nañ koo xam ak fan la daayira ji tàmbalee. waaw jërëjëf maanaam fi ñu tàmbalee sax mooy barab bi ñu toog ñu koy wax lycée Seydina Issa Roux Laye ex LPA muy barab boo xam ne di jànkaay nasaraan ñu yàlla dogal ñu am ci yeneen barab ci yeneen bërëb ñoo fi war dajaloo jàngee fi diiru ñetti at ngir am bac. Euh, lycée bi nag ñu ngi ko sos ci atum 1998 dañ ko sos ci 1999 ay mbokk ba yoo xam ne ñii ñu ngi woon CM Ego Diop ñii ñu ngi woon fii ci barab bi di fi jàngee amoon yëg-yëg bu taxawal fi liggéeyal Sëñ Tuubaa ci 1999 waaye nag ci 2000 mars 2000 ci la mbokk taalibe yi dajaloo dem Touba ngir ni ko daal yëpp di defee dem saako ndigal ndigal ci Cheikh Saliou Mbacke ba nu demee tubaab fekk ñu fa sëriñ bi fekk sëñ maa nga xel koom ci la mbokk taalibe jàll ba xel koom fekk ko fa sëriñ bi tuddee leen daara ji tuddee daara ji neelul maram kon turu neelul maram gi foofu la foofu la dooree loolu ci année 2000 la waaye taxuloon activité daara ji dem na mu waroon demee dëgg ndax boobu dañ naan def bis bu nekk rek ndax boobu lycée bi lundi ba vendredi maanaam altine ba ajuma dina am pause boo xam ne diggante midi la midi trente daan dajaloo Sane informatique rek waxtaan ci Sëñ tubaa ba heure pause bi jeex ku ne jóg dem. bis bu jot waaye man demee ba 16 novembre nag 2001 ci leen tàmbali nag dëgg-dëgg liggéey bi benn bisu àllarba nga xam ne ci leen tënk àllarba bu ne comme niñ ko defee tey di daay jamono yooyu man mi maan Abdourahmane Diop maa doon jëwriñ ji maa maa jiite woon liggéey bi jërëjëf. kon ni nga ko waxee bisu àllarba ngeen di daayra mën nañoo jàpp loolu waaye bëgg nañu xam itam bu ngay ñëwee si daara bi naka la daara bu demee. waaw xam nga barabu maanaam jànkaay. Mhm. warul rawatina lycée. nit ñi du ñu miin loolu lañ jàppoon mooy. ku fi ñëw rek da ngaa war a jàng. Mhm. am bag dem. Mhm. bu ñu ci boolee mbiru daayira day nduróog dañ cee boole mbiru religion ndax ku ne xam ne Sénégal. dañu bàkkee pays pays laïque école laïque maanaam école boo xam ne daal boo fi ñëwee sa mbiru diine sa mbiru pas-pas maanaam waru fee feeñ. nga xam ne kon tàmbali bi donte kilifa yi fi nekkoon ñoo bokk ak ñoom pas-pas ay murid lañ comme ñun waaye nag ko xam administration xam ne euh, am na nun la tënkee. amoon nañ ci jafe-jafe ndax euh, maanaam mënuñu woon affecté maanaam ñun àllarba bu nekk. ñu dajaloo di jàng ci kaw nit ñu dañu dégg ñu naan lii la ñu ne daayira bi nekk ci biir lycée bi la. kon njëlbeen gi xawoon naa am ay ay ay ay jafe-jafe yoo xam ne sëriñ bi mooñ ci génne waaye euh, maanaam am na ñu bëri yu fi jaar yoo xam ne tey heure bi waroon naa fekk ñu wax am na daara bi ñu ci lycée waaye nag lépp ndimbali sëriñ bi la ndax man mi di wax ak yéen 2002 ci la am bac ci lycée bi te ñu ngi ren ñu ngi ci 2022 kon daara ji fi mu toll nii boo xoolee rek ñu ngi ci ñaar fukki at ak benn wala ñaar fukki at ak ñaar te nag lu bëree bari jaar na fi waaye lépp rek dañ ko doon lijjanti ci yar ak teggin ak ci ndigal ñi nga xam ne moom sëñ Saliou joxoon nañ ko. kon daara ji euh, am na jaar jaar nag am na jaar jaar bu baree bari ndax tey jii sëñ Sidi Diakhaté mii wax nga xam mooy jëriñ ji maanaam jaar na fi ba am bac dem ESP dem France ñëwaat sëñ Abdou Thiam mi ngi nii sama wet professeur la tey daara ji am na ay médecins ñun ñii am na ci bëri ñoo xam ne. seen soxna ci daara ji lañ leen xamee te am nañ njaboot yoo xam ne ñu ci ñu suñ ginnaaw ci barab bi fii leen gënee àdduna kon daara ju am taw feexu sëriñ bi la kon loolu maanaam jaar-jaar la jaar-jaar la bëgg bëgg nañ xam tamit évolution bi ndax wax nga ko tàmbali gi metti woon na hmm. boobaak léegi euh, changement ndax am na ci daayira bi ak mbooloo mi nga xamante ni ñooy ñëwaat si ginnaaw waaw ñu nag mën nañ ne dañuy duñ ko tuddee changement ak yokkute lañ koy tuddee ndax dañu am taw am lu ñu am lu ñu taxawal mooy dañu waxoon ni. àllarba mhm. bu ne dañuy daje. suñu dajee dañuy jàng alquraanu karim. suñu noppee dañuy jàng njàng xasida ci mawlud ni ko kàkk si Masamba di waxee di di defee. suñu noppee loolu dañuy sikar sikaru laa waaye saam faal. suñu noppee dañuy waxtaan ci téere sëriñ bi. dina jóg dem. la ñu waxoon tamit ni daara ji képp ku fi nekk sëriñ Tuubaa tàmm léegi siñ Saaliwu suñu alaaji baal Cheikh Sidi Mokhtar si mën ndaxaa yàlla na fi jàgg di daara ji at mu ne dina dem siyaare ji la mhm. daara ji jàppoon tamit événement am dëgg dëgg dëgg mooy màggal Touba nga xam ne màggal gu njëkk ga ya njëkk ya dañ daan dajalee addiya mhm. yóbbu ko sëñ Saaliw maanaam muy muy muy njëgu nag mhm. waaye daara ji dem na ba defe naa ne fukki at ak juróom yi weesu daara ji mooy màggal màggal boppam Touba daara ji tamit ba nu jógee rek lañ jàpp ni at mu nekk nañ def édition sant Sëñ Touba ni ñu ko defee ni ñu ko bëgg a defee 2022 bii nga xam ne yàlla dogal na ñaari at yi weesu yi fi xewoon moo tax taxaw taxawluñ ko waaye nag laaj bi nga laaj ndox mu am solo mooy te daan doo daa am ne ci man te mënuma koo tontu dëgg-dëgg mooy noonu dañoo teel am tawféex tawféex googu mooy teel a maanaam ràññal leen li nga xam ne day doxini sëriñ bi ñu jëm faa ñu jëm faa tegu ci ci ak dëgg ak ci maanaam lu lépp loo xam ne duñ ko teg ci benn ay folklore soxna yi bu ñu ñëwee ni ñu ñëwee dañuy toog si ginnaaw. Mm-hmm. njàngum alxuraan lañ fiy def. moorul lañ fiy def sikarulaa lañ fiy def. Mm-hmm. waxtaan ak sëriñ lañ fi def buñ jógee buñ noppee gars yi duggaat ci saal yi ndax daan nañ fi dajee liggéey daanaka boo xëyee suba jàng si. ba daayra du bu daayra pare dañuy def ay ay groupe ay groupe de euh, groupe de travail. Mm-hmm. dugg ci classe yi. ngir maanaam eggale liggéey bi. ndax tamit loolu dinañ ci ñëw. Euh, ziar bi mujjee ziar Sëñ Saliou 2007. boobu ñun ñu ngi def licence. dama wax sëriñ bi ne ko xale yi dañuy def bac. boor nga ñaanal leen keroog suñu saal def na ma na xale yëpp am. an moomu ñëpp am. Hmm. waaye da cee teg nañu na nga wax xale yi. Hmm. ñu fonk seen jàng nasaraan ndax dafa maa yitteel. Hmm. te nañ ko jàppee mu seen liggéey li suñ Tuubaa kon nga xam ne maanaam barab bi képp ku fi jàng ba am bac. jam université am maîtrise. nga am DEA am doctorat. jàppal ni ci ndigal sëñ Saalum nga ko defee. kon nun dañoo loolu daf ñoo ñor. dañoo ñor tuddal naan sànq sëñ Abdou Thiam. Mhm. sëñ Siri Diakhaté. Mhm. sëñ Cheikh euh, Ibrahima Ba mu ngi suñu ginnaaw tey jii responsable la fële ca NMA. Mhm. mun naa tuddal ñoom sëñ Ahmadou Diallo ay médecin lañ soxna Asugaan médecin la. sëñ euh, Djili Sow professeur la moom sax médecine. sëñ Modou Niang euh, administrateur civil la. sëñ Ablaye Ndaw inspecteur trésor la sëñ Bamba Gueye inspecteur la. mën naa la fi limal téeméeri mag waxuma ay lim waxuma téeméer ngir lim de téeméeri mag ñoo xam ne. ñu ngi ci liggéey ba léegi fii leen jaar ba am bac muy soxna ak jigéen te ñu ngi ci barab yi gën a kawe ci réew mi di fa di fa di fa di fa yëngu te boole ko liggéey sëñ Tuubaa kon kon nekk na loo xamante ne lu am lu am am solo la mm-hmm. waaye loolu nag mënoo mënoo ko am fekk tënkoo mbooloo mi ci lenn mm-hmm. ndax mbooloo mi dañoo am ay sart wala mm-hmm. waaw sart gi nag euh, ñun dañoo am taw tawféexu maanaam ñun duñ daara joxoon boo ñëwee dañu la da ngay def lii soo deful lii bàyyi da ngaa sànq si njëriñ sax mu ngi koy wax nee na mbooloo mi boo ñëwee daanaka dañ lay bàyyi nga nga doxee sa yëg-yëg waaye nag doxee yëg-yëg bi nu muy nu muy mën a doxee mooy tamit ku ne xam ne fii ba nga ñëwee ba nga duggee fii ci barab bi gis nga ay basang yoo xam ne da lay gis nga gars yi simi seen daal dàll fële ñëw dugg toog lu penku soxna yi dem toog fee muur maanaam du jalu ñu lay wax la jaaral nii wala jaaral na le dañoo mu nekk loo xam ne ci jëf ak ci ci doxalin ku fi ñëw ba tàbbi ci daara ji rek suñu yërmande nag ndax nun ba ñuy doog a jóg soxna yi tey nekk suñu ginnaaw muuru nekk ci liggéey bi wallaahi asim mu ñu wax kenn da ngaa war a muuru dañoo nekk ak ñoom sëñ Abdou Thiam mais def na ci liggéey bu am solo jàng ñu fer it yi day ànd ak ñoom ci sëriñ bi di ànd ñoom ci gaa yu baax yi ñu ngay gis kenn ñëw ne la damaa gis kenn kenn danaan muuru sax am ay jafe-jafe yu métti seen kër indi coow lu bëri xam ne dama naan ko léegi yow boo nekkee seen kër bul muur waaye boo nekkee fii del muuru ndax nun lañ bëggoon rek mooy nun lañ ñoroon mooy kuy ñëw boo ñëwee lañ lañ wax nga dégg ko bu yàggee la nga bëgg yàgg sa waa kër nañ la ci fekk maanaam nit ñuy soloo tamit nduróog tey ji ëpp ci mbooloo mi dañuy sol baylaat mosuñu wax kenn ci del sol baylaat mosuñu ko wax kenn maanaam waaye ñun nag li Seydou Fall doon wax naan roy romb loolu def naa daara ji moom ci roy lañuy lañuy mooy sart yi daal roy roy lu baax mm-hmm. roy lu baax ndax yàlla tamit tawféex nañu dañoo jug ci jamono joo xam ne jamono siñ Saaliw jamono sëñ Moon Aminta Fall jamono sëñ Moussa Basiru jamono sëñ Mbàkke Soxna Lo te nag jamono joo xam ne la boobu nii nii digital bi mel way xarale mel melu ko woon boobu daanaka nit ñi dañ daan xool ci nit ñi di di di di am lu ñu roy di defaru waaw loolu loolu dafa amoon nit ñi ndax mbokk taalibe yii tey jamono yi sëñ Moune Aminta di defar euh, jannatu jamono jannatu mm. ñoom ñi bokkuñu ñu fa njëkk te boobu mm. ay élèves lañ nga xam dañoo am vacance mm. dem dem jannatu boobu sëñ boobu la sëñ Moune Aminta doo ko defar jannatu fii tey Baye Fall gi nekk mm-hmm. kon ay ñoo xam ne dañoo am tawféexu mm-hmm. doon roy maanaam di di di di topp mm-hmm. waaye amul ay sart yoo xam ne dañ naan jël naan diw da jaar fii da ngay jaar fële déedéet waaw ñun tawféexu sëriñ bi daal li sëñ Mountakha naan tawféexu sëriñ bi moom mooñ topp waaw loo loolu loolu nekk na lu am solo kon mën nañoo wax nii Eh, si tawfiix googu hmm. suñu borom dimbali leen leen fii nekk école de formation boo xamante ni bari na ñoo xam jaar nañ fi fii la ñu feree ijji fii la ñu xamee seen diine waaw loolu moom leen rek moo ñu ku fi jàng alxuraan ba mokkal waaye yàlla dimbali ñun tey ñun suñuy doom suñuy doom yi nga xam ne leen jur jàng nañ alxuraan ba mokkal te loolu li ñu ko dimbalee mooy yaa daara ba maanaam fii barab bii ñu toog la azim liñ fi jàng ci alxuraan karim kenn xam nu mu toll. Mhm. ndax mën naa la juróom-ñeenti weer yi saa yu fi dajee àllarba. Mhm. te dinañ kaay mi jàng ko jeex. ci barab bi ñu toog day. Mhm. Cheikh Mourtala moom Sëñ tubaa ba mu fi jógee fii lañ ko ñaanalee. kon jàng nañ fukki kaamil ak juróom-ñeent. loolu 2004 août 2004 la. Cheikh Saliou ba mu fi jógee. maanaam al samedi maanaam samedi bi ko ñëkk a yëg ñëpp yëg. jàng nañ fukki kaamil juróom-ñeent. Mm-hmm. bisu ñaan nga altine jàng nañ fa 28 kaamil ci barab bii lañ ko jàngee. Mm-hmm. Cheikh Alaaji Bara ba mu fi jógee noonu si Sidi Moxtaar maanaam ñun lu xew Touba yu mel noonu daanaka fii lañ koy defee duñ dem. ci mm-hmm. nañuy toog pour wax la ni. maanaam ñun leen rek moo defee ci daara ji. tey nit du ko jàng alxuraan ba mu mokkal. waaye bu dee ku mel ni suñu Abdou Thiam mee toog wala ku mel ñoom suñu Ousmane ñoom sëñ Ngañ Taal dañ jamono yi am ku ñuy wax suñu Abdou Akim moo ko yoree. tey xale yi ci bëri wala ëpp ci mbooloo mi fii lañ feree iji fii lañ jeexale taw si xaar fii lañ jeexale yu bëri bëri bëri waaw nañ fexe tamit mbokk taal bi fi tàbbi ñu xool ndax yaa ngi ci am nga foo bokk bu amul foo bokk bu déggoo yàlla ñu ne la murid day day day day jébbalu ko nga xool fu la doy nga dem nga fa yeeslu fa kon loolu maanaam tawféex la waaw culturel bi tamit lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu gëm la ndax culturel bi ndax euh, day day keroog sëñ sëñ Fallou moom suñu mën a amita damaa dégg mu ne keroog mu wax ci bi ndogo yi mu ne. Mhm. ñi fiy ñëw. Mhm. tey solo suñu yore noonu yi. Mhm. nañu ko bàyyi muy muy muy tuba yi. nun nag waxuñu kenn boo ñëw bul sol yore tuba waaye fexe nañ ba. maanaam lu ëpp ci daara ji yëg nit ñi. bi ñëw daara dañoo war a loxo saayu. waaw kon loolu loolu rek mooy mooy mooy mooy mooy tawféex gi. waaw kon daal mi ngi noonu. nekk na nekk na lu am solo lool. Hmm. ndax fexe ngeen ba. murid yi ngeen leen di xamal seen diine mm. waaye di leen fàttali tamit yoon bi ñu nekk ni nga xamante ni moom lay doxee mm. waaye ba seen comportement sax seen digganteek yeneen murid yi mm. am nañ si defaru ndax defaru taxoon nag loolu la Serigne Saliou Mbacke waxoon mm-hmm. wax nga ko sànq li nga xamante ni defagoo leen ko mooy eh, jàngal nit alxuraan ba mu wàccee ko fii waaye li nu bëggoon xam mooy ndax daara ji am na ab ay ay objectif yoo xamante ni teg na ko si bëtam bëgg bëgg fa àgg waaw euh, daar ji nag dañoo am particularité mooy. Mhm. ndax yeneen daara yi maa ngi tuub sax. ndax mhm. mel ne daara buy dox tey day am kër gu moom. Mhm. wala moom ay oto yu daw wala moom ay projet yu mag. wala lu am lu mu réalisé. waaye nun nag ñun dañoo ba ñu jógee ba léegi daal. daanaka mën naa ne 2007 ak léegi. doo nekk ci ndigal loo xam ne xam naa nañ si ñëw après. muy ndigalu got daaray got. du daaray sëñ Saliou. ba tax na ñun objectif bu njëkk bi ñu am mooy ak defaru. boobu li loolu naa ci ñëw defaru mooy fexe ba képp ku tàbb ci daara ji. ñu def ci yow maanaam lu jullit war a mel ndax dafa am étape yoo xam ne dana wax ni nit day nitee doonub jullit doon taalibe doonu murit doo ko nekk Baay Faal ñun étape yooyu dañ ko gëm maanaam dañoo fexe dañoo jàpp ni képp ku fi ñëw li ñu war a njëkk a def ci yow mooy yow nga xam ne yow nit nga te nit nag buñ ko waxee mooy ak nite. ak nite waaw xam ne jullit nga. Mm-hmm. te bu buñ ko waxee jullit nag mooy kuy jaamu yàlla. Mm-hmm. xam ne ak taalibe nga taalibe mooy ki nga xam ne. Mm-hmm. daan dégg ma sëriñ bi. bu doonee murid nag bu ñu ko ko defalee cachet bi. mu mën a doon mu mën a doon Baye Fall. kon loolu. maanaam ñun ñun moom ñun noonu la ñu doxee. waaw ñun objectif bi njëkk mooy. fexe ba maanaam boo tàbbee ci daara ji. la nga naan def. lu safaan. nga teg ko ci suuf te kenn du la bàyyi ko. ndax ci ñi ngay roy ak di ko gis. la nga la nga daan def ci lu baax. soo ñëwee ndekete xam ndax may xale yi na leen li ñu nekk mooy dëgg. ndax jamono yi weesu te loolu def naa ñun ak ñun ñun ak yéen ko dund. jóge ci màggal sëñ Fàllu jóge ci sangam jóge ci sangam ay mbokk taal bi yoo xam ne dañoo jege woon liggéey jóge fi ñu leen. maanaam jóge loolu nekk ci nekkoon. kon bu nekkoon ci leneen loo xam ne yàlla gërëmu ko. suñu activité dañ koy teg ci suuf. ba loolu jàll. moo tax daan na xale yi yu bëri mën na leen. nit dina maanaam nit war naa mën a jàng fii ci école bi. Mhm. boole ko daara bi tey réussir ndax dañoo amoon suñu nawle ñu new leen ci barab bi. Mhm. ñu bokk ñoom ay kalaas mhm. ñu nekk ay élèves bu noppi nekk euh, club club français. wala club filo wala club anglais wala di football. tey réussir <laughs> kon ñu ne ñun du tax du boole sëriñ bi. suñu ñaa ngi ma noppi te maanaam te duñu ñu réussir. kon loolu tamit yàlla dimbale ñu ko ban ban ban xam ni nekkate maanaam réussir sëriñ bi sëriñ bi moo ci gën a gaaw. waaw réussir. Mhm. sëriñ bi ji moo ci gën a gaaw. Mhm. ndax maanaam wax ci sa bopp day métti waaye wax naa leen mbokk taalibe yi ma la fi lim. Mhm. maanaam tey jii nii man mi fi gën a ñàkk solo. damay wax ni élève maanaam képp koo xam ne da ngaa yore sa kaye. dem di jàngi. moo maanaam la ngay uti man am naa ko ba noppi. Oh, ak niveau boo mën a nekk. waaw waaye nag loolu lépp dafa nekk addi Sëriñ Tuubaa. Oh, waaw. loolu moom moo war bépp murit mooy lépp loo am mbaa nga xam ko mbaa nga mën ko yëbbal ko ki nga xamante ne mooy sëriñ bi loolu moo moo mooy li ñu war waaye wax nga ko sànq euh, mille ba léegi 22 ans la mm-hmm. am na ñu bari ñu fi jaar mm-hmm. amna na si ñoo xamante ni ne jot gi mayatu len ñu mëna aksi fi mm-hmm. ñi dem nañ seen kër di sey mm-hmm. ñi seen liggéey mba sax ñu tuxu fo xamanteni sori na ak fii nii mm-hmm. ñooñu naka lay na ngeen di def eh, seen relation ak ñoom waaw fi nak dañu am slogan bu ñuy wax muy nelu fram une femme nelu maram une famille unie manam fi famille la nga famille mom bo fa nekké ba sey wala ba sant kër taxul nga génn di famille bi lool mom té loolu Mm, dafa nekk si ñun ndax ñun da ngay gis. Hmm. koo xam ne tey maanaam tey mën ngaa dugg ci kër goo xam ne. mën hmm. naa la limal juróom ñoo xam ne ñoo bokk neeg bàyyi. Hmm. ñoom ñëpp jaar nañ ci lycée bi am si bac jaar ci daara ah, naa la limal kër yoo xam ne tey boo demee maanaam sa soxna tey. daa jóge ci daara ji. ba maanaam ñaari kër yooyu di mbokk. wala ñoon ay mbokk yoo xam dañoo dañoo réeré woon ba mbokk mbokk ya nekk benn. waaye uh, ku ne xam ne ñu ngi ciy jamonoy whatsapp. tey groupe bi ñu ngi ci plus de deux cent trente nangam personnes nga xam ne am nañ dañoo dañoo toll ci xo créé beneen groupe. ndax daar ji ni nga ko waxee ñu ngi ci ñu ngi ci Dakar ay barab yu fasantu waaye ñu ngi ci Sénégal waaye ñu ngi Europe tey jii am nañ am nañ neelu maraam France am nañ neelu maram États-Unis am na neelu maram Canada te yooyu yëpp ay mbokk taal bi xam ne ñu ngi ci groupe bi.

dañ am bakk fii ci barab bi. Mhm. te yàlla dogal na alal ba saa yu ñu fekkee ci réew mi fekk ñu ndakaaru mhm. la ñuy njëkk def mooy solo ba ñu ja ñëpp jàpp nañ am fu fu ñu fonk fu ñuy dem fu am solo. Mhm. njëkk fi lay ñëw ngir liggéeyal Sëñ Tuubaa. daal mooy seen tool alal waaw mooy suñu tool alal waaw. waaw waaw góor loola am na solo loola liñ bëggoon mooy murit bu nga xamante ni seetaan na uh, jotaay bi. daayira bi ni ñu doxee neex ndax moom bu bëggoon a bokk day jar mu bokk ci muy jàngee fii wala. déedéet déedéet maanaam liggéey bi fii moom dañoo jàpp ni képp koo xam ne da ngay jullit bëgg lu baax yaa ngi ci biir rawatina am murit rawatina ko safu liggéey tey daara ji sax maanaam ñaar ñoo fi ëpp moo ñuy wax sympathisants yi ñoo fi ëpp ak ñi nga xam ne sax yàlla dogal na duñ ay élèves lycée wala sax duñ ay élèves waaw daara ji tey am na ñoo xam ne suñu jàng école maanaam dañuy romb dégg daara ji ñëw tàbb fi am na ñoo xam ne jàngee wuñ fi. Mhm. ñoo dégg feneen liggéey bi ñëw. Mhm. am ñoo xam seen mag moo fi bokkoon ñi seen rakk ñi dinañ fi yabal. Mhm. kon képp koo xam ne tey dégg nga liggéey mu saf la rek ba la safee rek ci bokk. ci bokk léegi sëñ Moustapha Fall Mbar di wax naan. Touba ci moom ba muy dem ci kanam. maanaam ñu ko sos boobu juddooguñ. waaw kon képp koo xam ne liggéey bi. gis nga ko mu ñor la rek te saf la rek yaa ngi ci biir. boo ci bëggee tàbbi nag daanaka àllarba moom bu nu nekkul fii am na barab boo xam ne siège bi lañ koy wooyee mi ngi fii ci Fadja ci kaw tëri bi dañ koo luyee te di ko fay. Mhm. Euh, déwén lañ fay def fukki at ndax 2013 ba léegi ñu ngi fa. Mhm. maanaam te daara jëmee boo fi bokk daanaka ñaar fukk ñaar fukk ak la. Mhm. ngay bokkee maanaam 140 francs jënd carte membre bi 1000 francs ah, waaw. loolu loolu loolu am na solo kon yéen murid yi nga xamante ni nii dégg ngeen waxtaan bi wala daa ngeen dégg daara bi ni ko jëriñ Abdourahmane waxee. bu ngeen si bëggee tab bi bu ngeen ñëwee fii di nga leen fekk mbaa bu ngeen demee siège ba ndax mën nañoo xam ndax daayira bi fii rek lay am wala des fois dana dem ci kër mbokk taalibe yi. waaw daayira bi moom euh, bu ñu jëlee activité yi li ñuy wax activité daara ji. dafa am lu ñuy wax activité hebdomadaire am lu ñuy wax mensuel am lu ñuy wax annuel. bu dee activité hebdomadaire moom li ci ëpp solo mooy àllarba mooy bisu daayira. moom mooy bisu jàng xam-xam. samedi ak dimanche mooy bisu répétition. kuréel yi ndax am nañ kuréel kuréel 2 ba kuréel 3 ak daje soxna yi kon loolu mooy daje yi àllarba yi nag bu ñu ko defewul fii dañ ko defee siège ba bu dee maanaam jamonoy vacances dañ ko yóbbu kër mbokk taalibe yi léeg-léeg mbokk taalibe xewle lu mel ni ngénte wala yeneen bis mu tàmmeek àllarba ñu yóbbul ko ko léeg kilifa soxla daara ji yóbbu ko ko àllarba waaye bu amul fii ci lycée bi rek mu ngi mi ngi ci siège ba bu dee euh, activité mensuelle yi daara ji daa bokk ci fédération bu ñuy wax xadaayihul fadaayil dafa nga xam ne dafa ëmb mbooleem élèves étudiants murid ñu nekk diggante Pikine Guédiawaye Parcelles mm-hmm. man mi yàlla natoo ma ma ma nekk ci bopp liggéey ba ah, àllarba bu ne dañuy daj euh, àllarba euh, weer wu ne dañuy daje benn yoon ci benn cellule mm-hmm. suñu jógee ci loolu tamit euh, weer wu ne dañuy dañuy dañuy def réunion ci suñu suñu siège bi fële golf Xidmatu Xadim mm-hmm. weer wu ne wu ne dañuy dem fu ñuy wax got mooy loolu ma la waxoon ne la ah. ndigalu Sëriñ Saliou la nga xam ne nun weer wu dee wu nekk dañuy dajale ravitaillement bu dund weer boo xam ne ngir yi daare god la ak daare geloor sëñ Saliou waaw weer loolu weer bu nekk lay am moom waaw loolu weer bu nekk lay am waaw liggéey boobu ndax yàgg ngeen koo liggéey waaw liggéey boobu moom ku ne xam ne ni daara ji moom moom daara sëñ Saliou la maanaam naa ne lu maraam moom daara sëñ Saliou la ndax euh, benn mag mu baax def nañu xale bu amul gul fanweeri at boo dundee ci moom fukki at ak juróom-ñaar. kooku lu mu xam. foofu la ko xamee ndax ñun dund nañu sëñ Saliou 17 ans. maanaam ba sëñ bi nekkee xalifa ba ni soo sa daara ji 2000 2000. ba 2007. kon am na juróom-ñaari at yoo xam ne daara ji sëñ bi rek la xam. ñun sax bokkoon na ci suñu àll ñu ne ba ba sëñ bi fi sëñ Saliou jógee dañoo xam ne nañu daayira daayira bu mujj. dajale bagage yi. delloo ko ku ne dem toog mais daara ji moom dafa yem. waaw loolu moom nekkoon nañ foofu. waaye nag sëriñ bi ndekete moom ngir ngir bëgg liggéey bi woy ci 2007 boobu dañoo dem ci sëriñ bi ndax boobu nit ñaa ngi dem xelkom ñi ngi dem xabaan ñi ngi dem fu nekk ñu laaj ko sëriñ bi daara sa daara yi sa daara yi ku ci bëggoon jëf nooy def ñu laaj ko ñun ñoo ko laaj sëñ bi na ma sëñ bi nañu sama daara yooyu sama daara yooyu féetee sow sow mooy ndakaaru mbooleem daara bu jógee sow di ma seet si sama daara yooyu mooy sa sas. est-ce que xam naa sëriñ bi bugg sëriñ bi bëgg wax ji leer suñu ñun mën nañu. seen mhm. daara seen daara ji. Mhm. ne sama daara yooyu di got ak xabaan ak geloor. Mhm. mooy seen sas. Oh, muy wax sëriñ son bu siise di di di di di di yeggale maanaam di di jottali. te loolu ba sëriñ bi wax ñëpp ngi toog. du loo xam ne sëñ bi dañu ko wax ci biir wala ñu génn naat sëñ bee ko wax déedéet sëñ bi ba mu koy wax. ñëpp ngi toog. loolu nag boo ko sëriñ bi waxee mbirum mbokk taalibe moom dañu jël. def ko ndigal lu jóge ci maanaam ndigal lu sëñ Tuubaa maanaam bu bu jëm ci maam Seera Fall mm-hmm. ak waa këram mm-hmm. ci at moomu lañ lañ lañ lañ nësal nekk mm-hmm. weer wu dee wu nekk juróom-ñaari daara yooyu ma wax naa ko sànq fédération xadaayil fadaayil nga xam ne lycée Canada lycée euh, Parcelles lycée Limamou Laye CM Ibrahima Thiaw Xidmat Xadim Golf CM Pikine Est maanaam euh, ak daara ju ñuy wax euh, neel ma kii Nour Daalen juróom-ñaari daara lañ weer wu dee wu nekk daara ju bu ne ñun saf nañu deux cent mille neelu maram weeru dew ne dañ koy dajale yóbbu ko ca fédération ba bu ñeneen ñi bu leen sasee tamit ba dajal dina toll ci huit cent mille francs huit cent mille yooyu doyul nag maanaam boo xoolee ndongo yi la fa nekk ak huit cent mille yi daanaka du leen dundal sax fukki fan ak juróom nga xam ne loolu ñu ne ñu ñu war a gën a góorgóorlu waaye nag mbokk taal ñu def seen kéemtalaay kàttan ngir loolu mën a dem ndax loolu tamit ravitaillement boo xam ne la mhm. weer wu dee wu ne la maanaam du jaas suñ jógee ci loolu tamit lu mel ne jàkka jafa nekk defar nañ ko mhm. jàkka ja nekk goon nga xam ne jàkk sëñ Saaliw la mhm. lu mel ne néegu bi ñuy wax néegu juróom benn ko ñeesal nañ ko ak ay yeneen yoo xam ne lu mel ne ay boulangerie artisanale ak ay machine à laver dañ ko fay def waaye yemuñu foofu maanaam koor bu jotee xale yi dañuy am maanaam sukkur koor ak lépp lu ñuy xëddee korite dañuy am nag moo xam ne moom la ñuy korite Tabaski yóbbu leen ay xar mm-hmm. màggal dañuy am ndugg màggal gàmm ñun fa la ñuy gàmmoo mm-hmm. Tabaski tamit dañ leen ñëwal ay yére fu mu toll ni yére yi ñu ngi koy ñaw loolu lépp dañ koy defal waa got mm-hmm. ak waa geloor liggéey boobu moom moom mooy suñu liggéey moom waaw liggéey boobu moom lu dul màggal Touba liggéey boobu mooy suñu mat. waaw kon loolu loolu ndigal ndigalu sëriñ bi la. Hmm. moo tax ay ndam rek ngeen siy am nag. li ñu li li li bëggoon a xam. Hmm. muy day mel ne eh, daayira bi am na bis bu muy waajal. Hmm. bis bi ñu waajal rek mooy bisu cant. nii Cheikh Mountakha sant yàlla mi ñu bëleeg sëriñ bi. waaye nañ sant sëriñ bi ñu taw ko xelal bi boppam. loolu nag ñu di ko def bis bu ne waxtu wu ne ak saa wu ne. waaye ku ne xam ne ne ci mbooloo. Mhm. daa baax lu ñuy wax activité culturelle. Mhm. maanaam dem ba at wala ay ay weer nga nga dajale say sa waa kër woo ñeneen. Mhm. ngir maanaam ngir yaatal ngir wane liggéey bi. loolu nag ñu koy wooyee ak cant. te wax naa ko léegi ne képp koo xam ne day sant. daa muy jaamu yàlla waaye képp kuy jaamu yàlla. day sant. ndax ci alxuraanu karim seytaane waxul ne dinaa fexe ba doo leen julli. wala doo leen woor wala déedéet daa naa fexe de naa yow suñu borom naa fexe lu ëpp sa jaam ñi. duñ ñu sant mhm. sëñ Tuubaa nag ku ne xam ne ci la roof màggal gi moom. Mhm. te képp koo xam ne sama mbég mooy sa mbég na ma ci sant mhm. kon moom xam nga seytaane moom fu fu mu jaar rek. sëñ bi teg na ko teg fa loo xam dafa gën. waaye cant googu nag sëñ Saal daan wax ne daa amul sukkari maanaam dañ koy dëkkee. amul waxtu amul saa. waaye nag ñun ñu ñu dalaloo njukkal sëriñ bi ci barab bi mooy. at mu ne ñu jàpp benn bis. dajale fi jullit ak mbokk taalibe yi. toggi bernde. tàmbale ko jàng alxuraan ak jàng xasida waxtaane ci sëriñ bi mhm. benn mboolem lycée bi ak ñuy wër ci lycée bi mhm. bu ñëwee maanaam soññe ma soññe waat ci taalibe ndax ak taalibe rek mu lañ ci lañ ciy dàkku tamit mhm. waaw dàkkuñu ci lenn lu taalibe ak ngërëma sëriñ bi ak ñaanal kii fi nekk muy sëriñ Muntaxa mu yàgg fi te wér ndax cant gi lañ koy tàmbale mooy incha allah daayira got daayira xabaan daayira geloor daare xel kom yi mm-hmm. umul xora daaru rahman mm-hmm. ndongo yi dañuy jàngal alxuraan karim mm-hmm. ngir ñu tàmbalee ko liggéey bi def ko addee sëñ Saliou waaye nag ñaanal jàmbaara jii ngi fi nekk mun Mountakha maanaam mu am li ko mbokk taalib di ñaanee maanaam kéemaani at dund suñ borom defal ko ko barke maam Sëriñ Fall bëgg xam tamit programme bi nu muy demee ndax benn bis la mbaa ñaar ak naka lay tëroo waaw cant gi moom mel na ni dimanche bi passé la tàmbali ndax dimanche bi passé mënoon AG bi nga xam ne dañ ko woon mbokk taalib bi yëpp ngir waajal liggéey bi cant gi euh, dimanche bi passé lañ ko def ngir commission yi daje seen biir commission bu nekk ni ñi laa bëgg a teralee samay gan te lii laa ci soxla ci ay koppar ji jiitu loolu laata koor gi euh, koor gi sax waroon naa cee ñëw ndax koor gi am nañ taw feexu fukki maanaam ñaar fukki fan ak juróom-ñeent yëpp dañ koy dundal ci daara ja ni ko sëñ Muntaxa di dundalee ca Touba. dimanche bi weesu def nañ AG mhm. ba commission yi ku ne wax na nga a xam nga la nga soxla ci ay koppar. ba xam ne budget bi nangam la. te lii moo fi nekk. kon lii moo ci des. tey nag mooy daara ji mujj bu ñu ko waxee daara cant. moo tax mbokk taal bi ñëw nii ñu ñëwee. nga xam ne. ci la ci la def dañuy réglage yi. ngir ngir waajale ko bis bi suba. yi defar ay ndékki yoo xam ne. mbooleem koo xam ne da ngay jàngee ci barab bi. maanaam euh, avisé nañ sax ñi fiy jaay ndékki. xam ne suba moom buñ mën buñ bañ a ñëw moo gën. ndax mbooleem ku fi ku fi jàngee rek ba ci professeur yi suba. daara ji moo la warloo ay ndékki waaw loolu suba la mm-hmm. ajuma incha allah tamit bu nu xëyee defar maanaam yeesal barab bi ba noppi 18 heures am nañ fi conférence boo xam ne ñun ak professeur lycée yi ñoo koy animé ngir defar ko élèves yi mm-hmm. ajuma ci guddi mm-hmm. am nañ fi euh, guddi maam Serap Fall boo xam ne ginnaaw gée Sikurla Sam Fall boo xam ne dañ koy laytaalee liggéey bi du ko ànd ak maam Gunda moom Serif Assane Fall Sëñ Saali moom Serif Assane euh, samedi bi nag mu tàmbalee ko njàngum alxuraan goo xam ne. te mm-hmm. ànd ak durus. Mm-hmm. ak mawlut mawlut moom. Mm-hmm. kuréel gu jug rek kuréel beneen kuréel toog. mu ñu demee ba euh, heure añ bu ñu ba noppi. dina am waxtaan bu gàtt boo xam ne dañ koy soññee ci sëriñ bi. weeral njàng mawlut ba ginnaaw tàkkusaan ñu defaan ay remise de prix maanaam remise de prix ndax dañuy honoré maanaam dañuy primé suñu meilleurs élèves yi. ak suñu meilleurs étudiants yi ak mbokk taalibe bi nga xam ne tey. am na mbokk taal bi nga xam te euh, ñu ngi ci daara ji jàll nañ kames kames ku ko xam ku ko xam mooy mhm. professeur yi nekk université mhm. ñii jàll nañ seen i seen ñu ngi ci ay postes yoo xam ne namee nañ leen dañ leen di primé ba waajur yi ñëw cant gi xam ne mhm. ñun dafa am loo xam ne dañu ko bëgg te la ñu bëgg mooy euh, ngërëma sëñ mi te lañ ko jaarale ci ci ci ci li nga xam ne yàlla du ko digle muy liggéey ak ak ak jaamu yàlla bu ko defee noonu la ñuy def ba ginnaaw timis ci la ñuy ñaan ndax ren cant gi day yendu. du du cant fanaan bis xasida la. Mm-hmm. noonu noonu lay demee yan yan yu mujj la sëñ Abdourahmane di jotale murid yi seetaan. waaw kàddu sant sëñ Tuubaa bu baax a baax a baax. Mm-hmm. di ñaan suñu jàmbaay seex Cheikh Mountakha ndax moom moom. Mm-hmm. moom jël maanaam dafa dafa dafa daa koo xam ne. ne yërmandeem yegg na ci la taalibe waroon def da moo koy def. ndax dama xale yi ne leen. yow xoolal xoolal sëñ bi at yi mu toll. koor gi. takkusaan gu ne. mu ñëw. ànd koog waa kër Serigne Touba yi. ba loolu jeex mu dem këram. boole koog teeru waa kër Serigne Rafaal yi. ànd nag ñoom liggéey ba loolu jeex. loolu doy ko bisu tabaski mu bañ korte ba ci suba sa mu jaraa ko mu taal otoom dem sant waa Hizbut ren ku dem Touba gis liggéey bi nu mu mel. Mm-hmm. xam ne maanaam Serigne bi. sànni na muruj yi foo xam ne mhm. maanaam muruj ñu faa jógee mhm. waaw kon ñun amuñu benn kàddu gu ñuy soññee gudul mhm. Cheikh Moustapha moom sëñ Abdou Khadre dafa dajale ak njabootam ba ñëw mu ne leen sëñ Mountakha mii laa leen bëgg a yee moom de képp ku fi mës a nekkal sëñ Touba topp na la nam la war a toppee kon bu demee ba lii dal ko ndogal gi dal ko mu nekk sëriñ Touba bu ma sañoon de waxuma la muruj yi waxuma la jullit waaye nit ñi sax dañu ko déggal te nag na ko ñu ngi soññaan murid bu baax a baax bu sëñ bi diglee ñu xar suñ tànk tubé nañ koy def waaye nañ fexe li sëñ bi tere ñu moytu ko waaw nañ ko bàyyi xel bu baax ndax wax naa ko bis xasida gi ñu fi digle woon murid yi yëpp xataraay nañu dem tuubaa mm-hmm. may nañ leen dem waaye bu ñu fa jógee tamit mm-hmm. nañ góorgóorlu ci tere yi waaw kon ñu ngi ñu ngi jégalu ñëpp di wax ne ñu ngi doon wax ci kàddu mm-hmm. ak ci ndigalu sëñ Siri Jaxate bari na ñu bëri mën na ma ñu wax jëwriñ ji <laughs> nekkoon naa waaye fi mu toll ni moom <laughs> sëñ Siri Jaxate mu baax mi mooy jëwriñ ji mm-hmm. ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi loolu téwér ak njabootu sëñ Tuubaa yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah daawatuhu bi jaay yi neenal maram wa ismatan lazama usnan xitaam barke maam Sëriñ Fall jërëjëf sëñ Abdourahmane Diop si kàddu yu am solo yooyu waaye ñu ngi jaajëfal bu baax tamit sëriñ Sidi Jaxate moom nga xamante ni moo ñu dalal te it di borom Pastef di jëwriñu daayira bi waaye sëñ Maxtaar Maxuja Mbay mi nga xamante ni moo ñu euh, jotale fii wax dëgg yàlla ba mu fee tàbbi ñu ngi leen di sant bu baax ak euh, sama ñaari caméraman yi sëñ Sëriñ Mbàkke ak euh, sëñ Muniru Jaata ak mbooleem murid yi nga xamante ni rek ñi ngi safoo saa su nekk Jazbul Murid li ñu li ñu leen waxoon rek fas nañ yéene fépp foo xamante ne nii ab daayira ngi fa bu nga ñu wooyee dañ fa ñëw ñun Jazbul Murid jële leen daayira bi wan leen li nga xamante ni moo fi xew waaye waxtaan ak ñoom ci déroulement daayira bi fa daayira bi tàmbalee ni ñuy doxee ak seeni objectif yëpp bu ñu amee bis waaye mbooleem lu mënti doon muy cant mbaa ziar bu ngeen jokkook ñun incha allah dañ fa taxaw taxawaay bi ñu war a taxawee incha allah rabbi kon loolu mooy jotaay bi nga xamante amaloon nañ ko tey ji ak waa lu Maram ñu ngi leen jox di daje nag ba beneen yoon incha allah si seen jotaayu daayira yi jërë ngeen jëf. ngir ngeen mën a topp suñu a fàtte activer a mën au service de Mamchir Ibrahim Fall.